Baye Fall yi nga xam ne ñoo nekkee ci réewum kanada ci njiital Serigne maam Cheikh Fall ñu indiwaat seenub àddiya ngir jébbal ko ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima fal di xalifaam at mu jot bu ñuy waajal koor gi ci talaata ji dëppoog le 29 mars 2022 ñu ñëwoon doon indil addiya am di Fall moom moo du Mbende mi nga xam ne mooy xalif général des bay faal jébbal ko addiya ji ñu dajale waaye ni ñu koy defee at mu ne jaar nañ fi nga xam ne moom moo di kër sëriñ Saaliw faat Sow jébbal ko seenub ziar waaye leeral ko liggéey bi nga xam ne at mu jot danañ ko ko leeral laata ñu ko yóbbul xalif général des Baye Fall. xam nañu seen diggante ak ñoom. waaw waaw xam nañ seen arona kii ngeen ñëw nii. sëriñ bi doon nit baaxal. nit la koo xam ni fierté mboolem ko sant Faal nga ci personnalité ak niteem ak mën a defar defaree bokk doon nit koo xam ni yoon wi rek moo ko ñor na defar rek moo ko ñor noppam yi buggu cee dégg lu dul lu baax barke sëñ Modou Moussa yoon wi rek moo ko ñor nag lépp lu sëñ bi mës a santaane ci këram gee kenn mënu ko ci ndax asgor su defee lim man wàcc na yàllaa ci des kon moo tax ba ngeen moo xeen daan fi jaar loolu force la te it na mii leeral na ma seen wóolare gu yàgg moom mii nag dafa am baat boo xam ne sëñ Cheikh Fall Baye góor da ko doon wax ci moom daan wax ne sëñ Saliou mii boo gisee ma bëgg ko daan roog sama maam te am na cëru boppam dafa am benn at mooy tukki dem France dem njalbeen gi xaaw a dëgër tuuti ndax xam nga am ñaankat daanaka bu toogee léngal dara gisul dara mu xaaw a jaaxle bi ma defee samay labaraat ba wax ak Cheikh moom mii laa gént mu ne ma tàllal sa bi ma ñaanalee ma raay sama kanam defe naa ne ci suba ga rek laa tàmbalee yëngu ñëw naa fa ci at mi sax jox sëriñ waaye waxuma ko sabab bi dëgg dëgg dëgg baatin bi waaye yàllaa ma boole moom sama bàyyi la sama xarit la sama lépp la wallaahi asim sëñ bi nga yokkulee na ñaanal bu baax faal ñu am pasteef la ñu am pasteef la ñu ànd bi ngi bëgg a yàgg ndax léegi mu def fukki at fu nu mës a jógee ci yow bu dee nag lañu àndi maa koy jëli fee lu ñu mës a joxe rek buñ jógee ci yow dinañ jaar ci man bu ne sëñ Saaliw lañ jaar man ak ah, kooku sama baay jaajëf Fall Ndiaga jaajëf ñaanal leen bu baax a baax a baax Fall jaajëf Fall jàmbaar lañu alhamdulilah am lu ñu indi rek bu déwénee hmm. lu ko ëpp moom ak dox la ak yokkute la alhamdulilah xam naa ne eh, am nañ pas pastif jëf hmm. waaye ki ñuy jëfal it hmm. am nag pay alhamdulilah ndax li ñu koy yót daal maanaam bañu tàmbalee jaar ci man daal di ko fi indi addiyi bi ma di ko gis at mu jot dëgg la dana ñaar ci la ñu indi woon alhamdulilah ci ren jii wallaay wallaay ci addiyi ren jii wallaay wallaay bés ndax dëgg la addiya moom day moo xam ne ni kenn waru koo tudd ci ci ci ñu di ko dégg mu mel ni àdduna da cee te raxu ci dëgg la ndax jëfi jëfi suñu borom la dëgg la dëgg moo tax waaye lim bu matum lim la de dëgg la mat na ko rek seere naa ko yi dëgg la alhamdulilah alhamdulilah sant rek di yàlla boo leen ñu dimbali rek te xeer ci sëriñ bi te suñu yéene ci sëriñ bi rek yàlla yeggale ko ba jëf yi daal ñoo am man-manam ak ak bi ak ak xéwal yi ko mën a jëfee. li sëriñ bi ndax man loolu rek la naam. xam nañ ko li faral waaw rawatina nag kër Cheikh dëgg la surtout ci di indi rek. day tombé liggéey Cheikh Ibra. waaw teew ndax ndogu yaa ngi nii. dëgg yaa ngi nii ñu ñu ñu da ko ci def. di jox sëñ bi moom jëmewu ko fenn pour ci sëñ bi rek. kon war ngeen sant yàlla yéen la jërëjëf jaajëf ngeen nu nuyu bokk yi fa xam ne ñoo fa des itam <laughs> te santal ñu leen bu baax a baax <laughs> ndax li nu amul lu moom daal mhm. ñu ngi ne woon ni seenu jàpp sore nañu waaye seenu jàpp ak sunu jàpp ñoo am kepp dëgg la Fall waaw ñoo kepp dëgg la Fall ñoo ngi sant baax ngeen jëf ci leen ñaanal sëñ ko ginnaaw bi ñu fa bàyyeekoo ci lañ ñëw fi nga xam ne moom moo di ci Baye Fall ga ci kër xalif général des Baye Fall am di Fall moom sëriñ du Mbenda ñoom jëwriñ yi nga xam ne ñoom lañ yabaloon ñu ñëw jébbal sëriñ bi seenu àddiya ñu xayma ko ci fukki million ci sunuy koppar maanaam 10 million de francs CFA ginnaaw bi ñu jébalee sëriñ bi àddiyee ji sëriñ Omar Dumbuya mi nga xam ne yàgg naa fekkee jotaayib ñoom bay faal yi nga xam ne ñoo nekkee ci réewum Canada daan indil àddiyee ji sëriñ Cheikh Jëmb Fall yëkkati na ay kàddu leeral sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda liggéey bi nga xam ne taalibe yi nekkee ci réewum Canada ci njiital sëriñ Maam Cheikh Fall moom lañ ko indil. waaw fukki million ñoom nag mhm. Canada lañ daan tàmbalee liggéey bi mhm. Arona Jeewo mi mhm. ak Cheikh ture ñoom la yàlla dogal ñu féete fi waaye ñu ëpp ci liggéey bi daanaka danoo féetee Canada am na ñeneen ñoo xam ne ñoo ngi sowi jant ñu ne fa mm, ci magam bu baax ba lañ ko tàmbee tàmbale woon liggéey seen ceex jëmb fukki at nii ñu tàmbali koo liggéey liggéeyu ndog yi jàppale nañ ci sëñ bu ne donte ka nag bu yóoga ñëwee ci ñoom la jëm làq nañ ci it ngërëmal sëñ bi ndax ni ñu faboo nii ñëw noonu lañ ko doon defalee sëriñ bi ba sëñ bi yóbbaale na seenub liggéey tey jii nag sëñ Moustapha mii mooy Cheikh Ibrahima Fall di sëñ di sëñ Modou Mbenda ñuy ñaan sa borom yàggal ko te wéral ko mboolem jëf ju baax joo xam ne magam ju baax ji defoon na ko ñuy ñaan mu fooxu ko ndax boobaa dañuy xam ne yoon wi dox na te it am na xol bu mu ko defee moom yàlla attee ci xolam rek ni mu ko ni bëggee sama borom dana ko ni defee ñoom nag ay fere lañ yoo xamee ne Canada lañ ne woon seen wayjur yi yóbbu leen fa ñuy jàngi njàng rek leen fa yóbboon samaam nag fekk leen fa tàbbi ci seen biir xol ba dimbali leen bi señ bi toogee ci lalu Cheikh Ibra gi bi mu doxee tuuti ñoom nag lañ ñëw ci sëñ bi jaayanteek moom lu ne daan nañ ko andil sëriñ bi ci liggéey bi ba ni sëñ bi jiitoo nag ñu woyal liggéey bi nii daaw rek jox nañ ko sëñ bi sëñ bi sant leen ci gërëm leen ci xamal leen ne liggéey yi may liggéeyal Cheikh Ibra ci koor gi làq ngeen ci sama ngërëm te ma dégg fu maamam wax ni ndogu yi may toggal sëñ Bamba ku ma jox lu tollook tànk ma defal la ci defar gu dootul yàqu boo faatoo ma tàbbal làjjana kon defe naa ne li ñu tàbbal sëñ bi ëpp nag tànk waaye nag lii nag kenn sañatu koo lekk ku dul Cheikh Ibra te Cheikh Ibra ngi nii toog yàlla na yàgg lool te wér toppi ca ñi ñu seqal liggéey bi nag ñoo ngi Canada am na ñeneen ñoo xamee nit bokk nañ ci liggéey bi ñoo ngi sowu jant ak ñu Sénégal gépp rek ñoo ko jox sëñ bi addi Cheikh ra di ñaanal sëñ bi yàgg fi lool te wér topp ca sëñ bi ñoo ngi sàkkuwu ñaan ay donga lañu lu baax rek lañ bëgg am na lu ñu ragal li ñu ragal na leen sëñ bi ñaanal buñ ko gis mukk liñ bëgg benn bëgg-bëgg dong la mooy am ngërëmalu sëñ Moustapha mi ak ngërëmalu Cheikh Mouhamadou Mountakha ñoo ngi ñaanal sëñ bi yàgg fi loolu te wér topp ci jëf jii nag xeeb nañ ko lool nga ñaanal leen ba bu déwénee buñ fi dellusiwaat mu fekk la fa danañ joxe foo ko lii la ndax moo ngi ci seen xol bu amee lu ci jub ñoom la waaye bu amee lu ci dëng matadi doomu aadama la ndax dañuy def saa yi ñu ñëwee fi ngeen jox ñu cër goo xamee ne suñu xel day dem ci sëñ bi ba day tooy lool ndax waxtu wi xam na ne waru fa woon fekk sëñ bi ndax kenn ku ne xam na ne tisbaar ba jëm tàkkusaan mag day noppalu waaye dégg ñu fi dégg tax sëñ bi def ñoo ngi tuubal yàlla tuubal yonent bi di tuubal sëñ Tuubaa Cheikh Ibra sëñ Moustapha ñoo ngi sant bu baax jërëjëf Fall jërëjëf Fall jaajëf Fall jëf ji nag kawe na lool ci xalifa général des Baye Fall Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Menda sant na bu baax a baax mbooleem taalibe yi nga xam ne ay baay fal lañ wala ay soppey maam Cheikh Ibrahima fal jëf ji nga xam ne at mu jot daañu ko jëf tey dañ koy gën a yokku. sëñ Omar Serigne baa ngi leen di nuyu di nuyu mboolem ñi ngeen bokkal daayira bi ñu nekk fii ci soowu jant ak ñu nekk ca Canada Serigne baa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. sëriñ baa ngi leen xamal ni jëf ji egsi na te day jëf ju ñu nangu ndax jëf joo xam ne ji dafa jëm ci liggéeyal Cheikh Fall jëf ju sëriñ jëf yi sëriñ bi sëriñ bi gën a fonk ci la bokk ndax sëriñ bi dafa bëgg liggéey bii muy liggéeyal Cheikh Fall te jële ko ci sëriñ Cheikh jëmb dafa bëgg mu eggale ko fa sëñ Cheikh jëmb fa mu ko bàyyi woon lu ci mën a yokk mu yokk ko mu jëm kaw ndax sëriñ Cheikh jëmbit fam ko bàyyi woon fam ko jële ak fam ko yóbbu kawe na kon nag sëriñ bii fi toog di sëriñ Moustapha Fall moom it bëgg ko yóbbu fu kawe yéen waa daayira bii nag yéen a ngi koy jàppale ci loolu kon sëriñ bi gis na ko te it jàpp na ko bu baax a baax a baax ndax nekk fu sori sam xel nekk ci liggéeyal Cheikh nga nekk ci fu mel ni Canada di liggéeyal Cheikh loolu ndimmal la ci yéen ndax foofa kat ay nasaraan rek a fa ne te séenu nañuy nañuy dunde ñoom ku ko topp rek kon sam xel du nekk ci Cheikh yéen nag seenum xel a ngi ci seenu xel nga ci liggéeyal sëriñ Touba seenu xel nga ci liggéeyal Cheikh Fall kon nag sëriñ bi mu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanal ñi ci bitim réew ak yéen ñi nekk fii ak ñi nekk ndakaaru ñoom ñëpp sëriñ bi gis na liggéey bi sant na leen gërëm na leen bu baax a baax a baax mi ngi ñaanit yal na yàgg ànd ak yéen di liggéeyal Cheikh Fall sëriñ baa ngi koy ñaan bu baax a baax a baax a baax mi ngi ñaan daal ci doole Cheikh lépp lu waay bëgg ci liggéey bii ngeen def na ko ci fas rek Cheikh dina ko def mu ngi leen di ñaanal bu baax ndax daayira Serigne Touba ba ngeen fa formé ah te boole ci Cheikh xëy na ñëpp Cheikh Rafal du seen la waaye da di def fu ngeen daje rek di fa liggéeyal Serigne Touba da ngeen liggéeyal ca wet ga loolu ngeen di liggéeyal Cheikh ca wet ga bu ñëwee fii it ci sëñ Touba la jëmaat kon sëriñ Touba ngeen di liggéeyal ba tey ndax lépp lu ngeen indi fii ci sëriñ bi rek sëriñ bi di koy joxaat sëriñ Touba kon nag yéen ñi koy jàppale ci loolu sëriñ bi sant na leen gërëm na leen mu ngi ñaanal sëriñ Omar mi itam ab taxawaayam yàgg bu baax a baax baax ndax na ma taxawoon ci sëñ Cheikh Jëmb rek ba tey noonu la taxawee rek na ma nekkoon ci sëñ Cheikh Jëmb noona la nekk ba léegi mi ngi liggéeyal Cheikh Ibra bu baax a baax a baax kon ñu ngi leen di ñaanal di ko ñaanal moom itam sëriñ bi sant na leen gërëm na leen jërë ngeen jëf jërëjëf. yéen xam bu baax. Mm-hmm. nee na yéen xam ngeen ko bu baax. te itam yéen liggéey liggéey boo xam ne. nee yéen a ngi liggéey liggéey boo xam ne. bu ma jógee foofu ngir Canada Canada. nee na mu bàyyi koo Canada. jëm si fii. nee jëm si fii. yéeg nee na yegsi na. loolu loolu loolu boo ko na mbir ko dee liggéey. bëgg caa liggéey. bëgg caa jariñu bëgg caa jariñu. faaw nga sonn ca loola. nee na faaw nga sonn ca loola. a ngi ci sonn nag. nee na ginnaaw yéen a ngi ci sonn nag. yàlla saa borom moo leen di fay. nee yàlla saa borom moo leen di fay. ak Serigne Touba. ak Serigne Touba. ak Cheikh Raba. ak Cheikh Mame ci fàttali taalibe yi nga xam ne ñoo nekkee ci réewum Canada di ay Baay Faal ak ay soppey maam Cheikh Ibrahima Fall at mu jot bu ñuy waajal koor gi daañu indi seen addiya fii ci xalif général des Baay Faal liggéey bi nag ñu ngi ko tàmbali woon depuis 2010 daaw ñu indi woon lu toll ci juróom million ren ji ñu yokk ba ci fukki million